wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain mbokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci bis bu tedd bi di ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala mu nangul ñu booleem jaamu giñ ciy def ñoo ngi nuyu ak di ziyaara sëriñ bi di ñaan yàlla itam yàggal ko fi tamay ko wér bam àggale mbooleem naalam yi ci kàttan ak biir tañ ànd koog moom mbokki jur yi dañoo dellusiwaat tey di fàttali seen bopp suñ bopp di leen fàttali bis bu tedd bii nga xamante ni ci lañ nekk muy bisab aljuma ndax borom bi a wa taala def cee diggal jullit yi ci ñu dajaloo ci biir jumaa yi ngir jooxe jullik aljuma muy ndigal loo xamante ni ci laaya juróom-ñeent ci sootu jumaa la ko sunu borom wàcce yaa ayuha alladina amanu ida nuudiya li salaati min yowmi aljumaati fasaw ila dikrillahi wa darul bayan kon digal loolu nga xamante ni nee na saa suñ noddee ci bisab ajjuma lu waaye doon def na ko fa bàyyi te wuy ji woote boobee wuy ji googee nag mooy dangay raxas sa xol rafetal sa yéene fas yéene jaamu yàlla ga nga fay def nga def ko ci ragal yàlla te def ko ngir jëmm yàlla te dëppale ko sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye waxut sax nag di njëkkante ak di waaxu ak di daw ndax julli gu man doon tam boo dee dem di wuj ci ca jàkka ya da ngay def tekkeeral akuk dal loolu la jaamu yàlla woote kon nag bis la bu am solo ndax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na woon bis yi bi ci gën ci bis yi nga xamante ni jant dana ca fenk mooy bisab aljuma xayru yawmin talaat alayhi sams yowm aljumaa ndax mu ne fii xuliqa aadam yonent yàlla aadam ci bisab ajjuma la ko borom bi bindoon waaye wa fii udxilal na ci lañ ko tàbbale woon aljanna waaye wa fii uxrija minha ci lañ ko ci génnee woon ci aljana xadis boobu muslim moo ko solo waaye kon ajjuma kon bokk na ci bis yi gën a tedd yonent bi aleyhi salaatu wasalaam waxoon na itam ne ñun xeetam wii day ñoo mujj ñëw jamono waaye kenn duñu jiitu itam ëllëg bis pénc naxnu l axiruuna saabiquuna yowma alqiyaama mu ne dëgg la ñu fi jiitu woon te yore woon diine yu yàlla gërëmloo yàlla baaxe leen ba wàcce woon ci ñoom ay téere loola itam lu ama am solo la bayda annahum uutul kitaaba min qablina waaye nag la leen yàlla baaxe woon loolu lépp itam joxoon na leen bisab àjjuma bii ngir ñu mën cee daje di jaamu yàlla ñu wuute ca ba dëppoowuñ ca waaye yàlla baaxee ko moom ak xeetam bi moom yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam bañ ràññee ajjuma ba ci mën a def jaamu yàlla gu toll nii moo tax mu ne nit ñi ginnaaw ajjuma ñeneen ñi dul ay jullit ginnaaw ajjuma la ñuy xat-xatloo fannaasu lana tabaxun fii tabaun al yahudu gadan bu dee suba ji gaaw yahud yi nee nañ mooy seen bis waaye wan nasaara baada gadin ñi nga xam ñooy chrétiens yi itam ginnaaw suba di dibéer nee nañ mooy seen bis waaye yàlla baaxee ñun ñu jàpp ci suñ aljuma ji xadis boobu itam al buxaari moo ko soso solo yonente bi alayhi salaatu wasalaam itam ci wax ak xamal gi ñuy xamal ne jullit waxtu nekk war nay xëntewoo luy far ay bakkaaram nee na di farlu ci ajjuma di ko julli dana bokk ci li far bàkkaar yi dox diggante ajjuma ak morom ja naka noonu di farlu ci julli juróom naka noon di farlu ci diggante weeru koor ak moroom ja assalawaatul xams wal jumaatu ila al jumaati wa ramadaanu ila ramadaan mukaffiratun ma baynahunna isajtunibatil kabair nee na diggante ajjuma ak moroom ja su fekkee farlu nga ci ajjuma ba julli ko li feek ajuma ji dil siwaat loo fi def ci ay ñaawteef sunu borom mën na la koo jéggal su fekkee góor góorlu nga ba bàyyi bàkkaar yu mag ya waaye nag mu am ci nit ñi ñoo xamante ni dañoo doyadal dal xutbab aljuma ba ñu koy yéexe léeg-léeg nga ngay ñëw ci waxtu wi nga xamante ni ca la ilimaan di xutba wala nga ñëw sax ci biir julli ga am ñoo xam ni sax far dañ di julli ci ajjuma te mbooleem xeeti nit yooyu itam xëtt nañ digal waaye nag yonent bi aleyhi salaatu wasalaam tëkkoo woon ci lool nee na woon am na ñoo xamante nii day dañuy sàggan bay bàyyee julli ji àjjuma ñooñu suñ bàyyiwut loolee ñu baaxoo te dellusiwaat di julli àjjuma suñ bàyyiwut loolee sunu borom dana tàppe seeni xol ya ba aw yiw du ca mën a dugg sunu borom itam dana leen boole ca way sàggan ya te sàggan sunu borom daf ko daa tere woon yónnent bi ne bul bokk ca ñu sàggan ña ci wala takun min al ci suratul araf laaye ñaar téeméer ak juróom la yantahiyanna aqwaamun an wad'ihimul jumaat aw la yaxtimanna allahu ala qulubihim summa la yakununna min al ghafilin bi alayhi salaatu yëmut foofu ci wane ne kuy bàyyi ajjuma yaa ngi ci musiba mu rëy ku koy bàyyi te amoo ngant mu ne woon man day eh, demoon naa ba bëggoon a wut jenn waay jiital ko ci mbooloo mi mu jiite ajjuma fu ma jëm xanaa seeti nit ña nga xamante ni ajjuma daf leen a waroon te amuñ benn ngànt ma fob seen kër ya boole leen ak seen kër ya lakk leen bañ bañ bañ lakk loola itam ku ko xam dégg ko ci wax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam da nga xam ne kon eh, wuute ajjuma te amoo ngànt amul solo laqad hamamtu an amura rajulan yusalli binnaasi summa uxarriqa ala rijalin yataxallafuuna anil jumaati buyutahum loolu nag ku dégg tëkk yooyu nag te ragal tëkk yooyu ba fas yéene wuy ji woote bi yàlla boobu na la wóor ne war ngaa am waajtaay waajtaayoo mooy nga sangu bala ngay julli ci àjjuma waajtaayoo mooy boo amee gët ak xet gu neex nga laaloo ko bala nga ñëw ndax yooyu yëpp ci sunna yi la ndax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na woon waa joo xamante ni bisab àjjuma dafa jot mu sangu ni sangoo janaa ba waaye sangum sunna lay doon laal gët ba noppi itam génn dem ca jumaa ja seet fa sàppee yem mu toog fa te bañ a jéggat nit ña ba noppi julli julli nañ ko ko digale woon bu ilimaan dee xutba mu koy déglu nee na ku def loola defe ko nii moom mu ko waxee moom yonent bi aleyhi salaatu wasalaam sunu boroom dana la jéggal ñaawteef ak bakkaar ya nga defoon ca diggante ajjuma ja nga ko njëkkoon def ak ajjuma jing ko defee waat loolu nag ku ko dégg xam ne kon teewe aljuma am na solo lool mu waxaat moom yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne bu bisab ajjuma jotee sunu borom dafay sàkk ay malaayika ñu taxaw ci buntu jumaa yi di bind ki njëkk a ñëw ak ka ca topp ak ka ca topp ak ka di leen toftale nee na noonu la malaayika yee def diw sàngama njëkk a ñëw diw sàngama ca tege diw sàngama ca tege bu ñu demee ba nga xamante ni ilimaan taxaw na ci mimbar bi ngir bëgg a xutba ñu lem seeni këyit nag ñëw di déglu si xutba bi ida kaana yowmul jumaati kaana ala kulli baabin min abwaabil masjidi malaa'ikatun yaktubuuna al awwala fal awwal fa ida jalasa al imaamu ala al mimbar taw suxufa wa jaau yastamiuuna dikra moo tax yonent bi alei salatu tam soññee lool ci teel a julli si àjjuma ba waxoon ne ku sangu ni muy sangoo janaaba te mooy sangum sunna moo ngay def ci bisab àjjuma teel a dem jàkka ca waxtu njëkk wa nee yaa ngi mel ne ku sarxelu toll ne ak gëléem ngir jëm yàlla ku dem ca waxtu wa ca toppaat yaa ngi mel ne ku sarxe lu toll ne aw nag ku ko sarxe ngir jëm yàlla ku dem ca ñetteelu waxtu ba yaa ngi mel ne ku sarxe am xaar mu mag ku dem ca ñeenteelu waxtu yaa ngi mel ne ku sarxe ak ganaar ku dem ca juróomeelu waxtu wa ca mujj nag yaa ngi mel ne ku sarxe ab nen te ku nekk xam ne nag yooyu mu tegle ku ko sarxe ngir jëmmi yàlla wuute nga ka ko defut ka sarxe lu toll ne gëléem ak ka sarxe lu toll ne aw nag ak ka saraxe toll nem xar ak ka saraxe lu toll ne ganaar ak ka saraxe lu toll nem nen da xam ne kon diggante tuyaaba yi ku njëkk ga ak ku mu gi sole na mu ne nag noonu lañuy def di njëkkante ku nekk yi teew buñ demee ba nga xam imaam ji teew na nag malaayika ya doon joxe tuyaaba yi ak di ko bind ñëw di déglu si xutba bi waxtu woowee nga xamante ni nag moom la waxtu àjjuma wowu nga xam ne dañuy bëgg nit di gaaw di ko teewee boroom xam-xam dañ cee wuti am na ñu ne bu boo jullee suba ba noppi rek lay tàmbali am ñu ne bu jant bi fenkee la am ñu ne ginnaaw midi la waaye lu la ci waaye man di wax mooy yonent bi dafa bëggoon ku teele dem ci jàkk yi ngir julli ci àjjuma ngir teele dem jàkk yi ngir julli ci àjjuma am na ngëneel yu bari yu ca yum làmboo benn ba ci njëkk mooy jiitu gi ngay jiitu ci jàkka ji ngëneel la bu ñaareel ba toog ga ngay toog ca sàppe yu njëkk ya ngëneel la bu ñetteel ba néggandiku ak xaar ga ngay xaar julli gi toog ga ngay toog ngëneel la naka noonu itam ku nekk xam ne ne ku teelee dem ci jumaa yi te nekk fa lañ la digaloon mooy ay naafila ak zikr di jàng alquran di jàng xasida yi te di ko jàng ci kàddu gu yalu ba doo xatal ña nga dendeel loolu lépp ku nekk xam ne ne ku teelu te dem ci jumaa doo mën a def yooyu yëpp waaye ko ko teele yi nag yaay mën a am yooyu yëpp yonent bi aleyhi salaatu wasalaam tam waxoon ne bisab àjjuma am na ci waxtu woo xamante ni ku yàlla baaxee ba nga taseeg moom te def ca lu baax tàllal sa loxo borom bi ñaan ko sa ñaan googee yàlla def koy nangu an abi hurayrata radiallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama dakara yowma aljumuati fa qaal fiihi saacatun laa yuwaafiquha abdun muslimun wa huwa qaaimun yusalli yasalu llaha azza wa jalla shay'an illa aataahu iyaa waxtu woowu itam nag boroom xam-xam yi wuute nañ ci waaye ku ñu wax abu burda wax na ne way juram wax na ko ne dégg na yonent bi alei salaatu wasalaam wax ne hiya ma bayna an yajlisa al imaamu ila an tuquda salaatu mooy diggante bi ilimaan ji taxaw ci mimbar bi ba keroo muy sëlmal ci jullig ajjuma gi kon waxtu yi yëpp nag waaye ku bëgg a dajeek nag yiw yëpp rek fexeel ba màng waxtu yëpp rekk teel a ñëw ci jumaa ji te nekk fa lañ la digaloon nga nekk fa bu soobee yàlla insha allahu danga mën a taseek loolee ca yonent bi alayhi salaatu wasalaam dige woon ñu jëlewaat ci abdullah ibnu abbas radiallahu anhuma mu wax ne képp koo xamante ni imaam dafa nekk ci kaw mimbar bi di xutba bisab àjjuma ngay waxtaan waxtaan woo xamante ni waxtaanu àddula la wala waxtaan wu man di doon nee na fa huwa kamasalil ximaari yaxmilu asfaara nee na kooku ñàkk na ñàkk solo goo xamante ni buñ ko doon gam-gam leel mi ngi mel ne ku mbaam mu sëf ay téere mooy lam dikk bari nay njariñ lool waaye jëriñoo ko ni nga xam ne eh, mbaam mu sëf ay téere lam sëf am na njariñ waaye xamu ko kon kuy wax ci jamono ji imaam di xutba nee na yaa ngi mel ne mbaamu sëf ay téere waaye mu ne nag waaja xamul loolu sàggan bay wax ci jamono jooju yow ma yow ma koy àddu naan ko tee ngaa déglu nee na yéen a bokk àtte moo tax mu ne isa qulta li saaxibika an sit wal imaamu yaxtubu faqadi la xawta kon àjjumaa ngi noonu nga ne loolu la am ñu war waxtu wu nekk itam ñu koy bàyyi xel ngir nga ne loolu itam sunu borom bindal ñu ci ab cër bu gën a duun أكبر أشهد محمد رسول الله أشهد محمد رسول يهل السلام bismillahi irrahmaani irrahim kon ñu tënk dara ci xutba imaam bi xafizahullah yudakkiruna al imaamu fi xutbatihi qawla nabiyi alayhi salaatu wasalaam kun fi dunya ka annaka garib aw abiru sabil al imaam mi ngi fàttali ci xutbaam bi la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne soo nekkee ci àdduna na ngay mel ne ku tumuranke wala na ngay mel nekku nekk ci ab tukki loolu mooy nanga xam ne àdduna du kër ak saxuwaay des fi jaar romb këru dëkkuwaay ba dëgg-dëgg mooy àllaaxira waaye àdduna nag fi la ñuy waajale àllaaxira fi la ñuy jëf ju baax ju ñuy mën a jëriñ ca àllaxira mi ñuy fàttali itam wax yonente bi alayhi salaatu wasalaam jëm waxoon ne xaasibu anfusakum qabila an tuxaasabu na xisaab seen bopp njëkk ñu leen di xisaab ëllëg bis pénc jullit daal ngoon gu jot wala ay bis gu jot war naa xool la weesu la ca baax mu sant ci yàlla te jiim caa góor góor lu mu yokk la ca baaxut itam mu tuub ko te rëcc ko loolu mooy nañuy xisaabe na nit di xisaabe boppam mu teg ca ne wasino bi misaani sariati jamia amalikum na ngeen di natt ci balance su sariya mbooleem jëf yu ngeen di jëf ak mbooleem wax yu ngeen di wax itam fa maa waafaqa minha qistaasa sariati fa duumu alayhi bu ngeen xoolee seeni jëf ak seeni wax ngeen gis ne dëppoo naag sariyan na ngeen ca sax te bañ koo bàyyi wa maa xaalafahu fa tuubu minhu wajtanibuhu lu wuuteeg moom itam na ngeen ko tuub te bàyyi ko waalamu annama fi l axirati xayrun wa abqa na ngeen xam ne la nekk ca àllaaxira ci aw yiw yàlla dik ku jub bi mu nekkee àdduna moo gën fuuf àdduna ak li ci biiram wa annama fi haasi dunya qalilun yafna ñu xam ne itam li nekk ci àdduna lu néew la boo ko nattee ak àllaaxira te luy jeex la itam wamal xayaatu dunya illa mataaul xuruur nañ xam ne itam àdduna dund ak àdduna bànneex bi fi nekk bànneex la buy ware ndax nit de yaakaar ne luy sax la te mu teg ci ne weeru baraxloo ngi nii ñu nekkoon ci te mi ngi waaj a tàggoo haza saabaan qad istaqalla raxilan fa ka ma kaan mi ngi mel ne jaaru fi won waaye wa hada ramadaanu qad adalla qaabilan wa ka annahu aydan qad insalama wa mu ne ñoo ngi dëgmal weeru koor di ñaan yàlla ñu yegg ci ak jàmm te defe ko na ko borom bi bëggee tam dëppook sunna si yonante bi te yàlla ñu yàlla nangul tam waaye mu ne mi ngi dëggmal si waaye nii weeru baraxlu rombee di jàll insha allahu taala noonu lay rombe kon lu ñu war ci baraxloo koor ak weer wu man di doon ak bis bu man doon mooy lan mooy baadiru raximakumullahu bil amali saalihaat maa dumtum fi qaydil xayaa na njëkkante gaawantu di jëf-jëf ju baax li feeg ñoo ngi ci dund gi wa sa yazurukum qariban zairul xayri wal ixsaan imaam nee na insha allahu taala balaa yàgg gànnu yiw danañu gane si te mooy weeru koor yàlla nañu yàlla defal itam ñu yegg ci ak jàmm ala wa huwa sahru ramadan allazi unzila fihi alquran nee na gan googu nga xam ne sëriñ bi gan la ko tudde woon te gan dis koy teral te lañ koy terale mooy ak jaamu yàlla nee na nañ ko def fa xaafizu ala awqaatihi wa taaradu fihi li rahmati rabbikum wa nafaxaati kon nañ màng waxtu yu am solo yooyu yi ñu nekk ak yooyu di dëgmal ci li ñuy jariñ ngir ñu mën a tasee gërmande yàlla ñoo ngi ñaan yàlla mu defal ñu ci tawfiq ñoo ngi ñaan yàlla mu nangul ñu mboolem jaam gi koy jaamu te jéggal ñu mboolem bàkkaar bi ñoo ngi ñaan yàlla itam mu yàggal fi sëriñ bi te may ko bir ba mu mboolem naa la ñu tañ ànd kook moom wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu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

ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah الحمد لله الذي أمرنا باتباع السنة في كل الأوقات وشرف المتبعين للسنة تشريفا وأخبرنا على لسان نبيه أن المتبعين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 ظاهرا وباطنا واعلموا أن الدنيا ليست بدار قرار لكم فاستعدوا للموت فقد أضلكم وقد قال صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات حتى ينقطع ركونكم إليها ألا وإنكم في يوم عمل لا حساب فيه ألا وإنكم توشكون في يوم حساب لا عمل فيه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إنما توعدون لآتٍ وما أنتم بمعجزين الحمد لله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار والصلاة والسلام على المبعوث للقلب بالتبشير والإنذار سيدنا محمد بآله وصحبه أولي الأيدي والأبصار أما بعد فيا عباد الله تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا بميزان الشريعة جميع أعمالكم وما وافق منها قسطاس الشريعة فدوموا عليه وما خالفه فتوبوا منه واجتنبوه واعلموا أن ما في الآخرة خير وأبقى وأن ما في هذه الدنيا قليل يفنى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أيها الناس اعبدوا الله واشكروه على نعمه لو رام فرد من أفراد العباد أن يحصي ما أنعم به عليه في خلق عضو من أعضائه أو حاسة من حواسه لم يقدر على ذلك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 ربنا ولك الحمد الله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 سمع الله ربنا ولك الحمد الله asalaamaaleykum. asalaam.